loolu bëgg naa ko leeral finance même suñ la valide les budget da ngay wax li ngay décaissé ñu jox la ko nga justifié ko du xaalis buñ dajale rek def ko ci kees daaju ministère ba gàddu koy dox loolu it il faut mu leer ci bopp nit beneen mbir bi mooy li nga wax ci basket basket xam nga ñëpp nee nañ ñu ngi def lu ñu mën pour wàññi coow li ci compétition yi ci wàllu prix mag yëpp loolu tekkiwul ne tolof tolof du loolu li muy am bari na ñu war a def benn affaire tey am ku ko def ñu régulariser xam nga luy coowu góor bi si mooy jël nañ ci moom koppar même bu ma ci d'accord waxtu wañ ko ko war a delloo delloowuñu ko ko mais bu buñ ko delloowoon te waxtu wa sax yow doo ko yëg parce que c'est pas la première fois góor gi si ñeen li muy reyante pour réew mi di ko defal réewam loolu ñu ko jëlal dara am na ñuy def lu ëpp loolu ci sport bi te kenn xamu leen coow lu mel noonu am na coow lu mel noonu am na bi ñu demee Angleterre ci football mm-hmm. ñu yóbbu ay euro fekk ñoom ñu génn ci la zone euro hôtel bi ne du laal xaalis boobu parce que ñoom génn nañ fa Kalidou ne comme xaalis bii kay dama koy dugal sama compte te man yor naa carte bu ma fay bàyyi ma jël sama carte fay. mais état day prévoir itam. non dafa tombé. parce que moment bi ñu fay yegg lañ gén lañ def Brexit bi ñu génn. Ah, dafa tombé dafa tombé mais bu tombé wu loon gars ko gérer bu yàgg. parce que fi ñuy dem Angleterre ji gën a law te coow loolu gis nga nag. kuy def lu amul benn tolo tolof boo ko xamee wax ma. loolu yëpp ci tolof tolof yi la mais booy xool konte li baax li baax a ëpp te man bu may liggéey damay ñaan yàlla ñu ëpp ci réew mi d'accord ci li may def li ci ëpp baax parce que du ñàkk lu gàkk gàkk bu ndaw gàkk gàkk bu am nag nañ fexe ba bu mu amaat parce que même ci diine mm-hmm. dañ la naan boo defee bàkkaar tooñ boo jégguloo bu ko defati loolu bu fekkee ne diine moo wax loolu waxtu ma laa ci mbir yi. waaye ndax li ci état di di li ci li ci état du ci diine ñu man ba tey damay wax rek en tant que sénégalais lambda bi. état day prévoir non j'ai convoqué la religion mais j'ai pris hmm. position. état day prévoir. non sama xalaat ñun li ñuy jàng ak li ñuy xamal. li ñuy jàpp d'habitude mooy état day prévoir. Pape Cheikh moo tax ñuy kaas. moo tax ñuy wax état day prévoir. Pape Cheikh j'ai hmm. convoqué la religion. Hmm. mais j'ai pris position dama la ne. loo def te melul na mu war a mel bu ko defati. xam nga des fois nga prévoir ni un million la équipe bi war a lekk au Burkina Faso. loo mën di mën di prévoir mu am mu nouveau bu dugg si nga war ko gérer. tu hmm. dépasseras le million.